jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew FM quatre vingt dix yéen sunu mbokku auditeurs yi ak sunu mbokku auditrices yi ñoo ngi leen di euh, nuyu. mbokk yi nag dellu am mbégte dellu siwaat ci seen émission pencum réew mi muy am euh, samedi bu jot bu quinze heures jotee jàpp seize heures ngeen di sànd ak Abdou moom Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu euh, machine bi mbokk tey ñu invité Amadou Bassirou Ndiaye moom mooy président coalition JISS. Euh, justice solidarité euh, entrepreneuriat moom la ñu invité lay fas ni waxtaan euh, ak moom ñoo ngi leen nuyu. jërëjëf Abdou Khadre maa ngi nuyu ñëpp di nuyu personnel bi di nuyu ñëpp ñu ñuy déglu. seen coalition bi di juste kañ ngeen ko taxawal. taxawal nañ ko mois de septembre mais commencé woon nañ ko togg depuis début janvier deux mille vingt deux. Hmm. mais mois de septembre daal lañ ko officialisé commencé di yëngatu di participer ci débat politique yi. Mm-hmm. mais mais élection présidentielle 2019 est-ce que yow gisuma woon ci coalition jot na mooy euh, coalition bi na àndoon ak Ousmane Sonko pour dem ci élection présidentielle. non non non non no non non bokkuma ci woon euh, suñ coordonnatrice moo bokkoon ci coalition jot na coordonnatrice su coalition bi mu tudd Ndeye Sow. Ah, yow bokk yow bokk la noonu jot na. non man maa ngi bokkoon ci coalition benn Bokk Yaakaar parce que man maay secrétaire administratif euh, bu Macky 2012 période boobu. ok ah Macky 2012 si nga nekkoon. si laa nekkoon waaw si Macky 2012 laa nekkoon. Euh, depuis 2015 euh, nekk secrétaire administratif euh, bi fa Moustapha ci nekk coordonnateur après un peu une partie Moussa Diop après Fatoumata Gueye Diop bi nekk actuelle coordonnatrice mais mois de janvier daal laa bàyyi Macky 2012. mois de janvier bi ban si. 2022 2022. en euh, mois de janvier 2022 si nga bàyyi Macky 2012. waaw dem ànd ak euh, Ibrahima Mbow daf ma woowoon pour ma jàppale ko pour euh, coalition bunt bi élection li municipale yi dama ñëwee jàppale ko jàppale ko aussi élection législative yi bi ñu paree nag ñu ne boobu ñu dañuy demal suñ bopp léegi daal coalition justice solidarité entrepreneuriat la ñuy mettre en place si la ñu waxtaanee ma dem Ndeye Sow Leila ak ñeneen i leader ñu ànd créer coalition juste pour justice solidarité entrepreneur parce que dañu gis ne am na loo xam ne manqué na ci homme politique yi ak ci coalition yi parti politique yi mooy waxal askan wi wax programme jiital programme ñëpp ñuy wax rek toujours dañuy jiital seen bopp jiital seen i bëgg-bëgg doog xool askan wi ñun daal ñu bëgg a inverser les choses ne dañu ñëw pour waxtaan ak waxtaanal askan bi wax bëgg-bëgg askan wi. Hmm. doog a xool nit ñi ñu koy war a jiite waaw. léegi euh, Amadou Bachir Ndiaye kon daal mën naa man naa jàpp ne yow élection présidentielle 2019 président Macky Sall nga àndaloon. waaw élection 2019 président Macky Sall la àndaloon. 2012 président Macky Sall la àndaloon. d' accord léegi euh, Macky 2012 kon xanaa kon fi nii kenn desatu fa. ah si ñoom ñu ngi ak seen i sous coalition. mais mooy li ma wax sànq dama dem ba benn instant man ma gis ne. xaw naa xat parce que du am ay ndomba tànk wala liggéey eh, ñu jox la li poste moo intéressant li intéressant mooy ñun ay mag lañ am nañu njaboot gis nañu njaboot gi am nañ jafe-jafe et que suñuy def ay infrastructure par exemple su ma lay jox benn exemple rek président Macky Sall def na infrastructure yu bëri def na autoroute def na lu nekk waaye nit ñi ba léegi ñu ngi xiif nit ñi ba léegi ñu ngi am jafe-jafe liggéey donc ñun ak faju ak faju donc ñun suñ problème mooy loolu mooy que ne yow balaa ngaa def infrastructure joxal nit ñi la ñu mun a dundee suñ mënee dundee pare infrastructure dañ ko mën a utiliser mais jox nit ñi ay infrastructure yu ñu mënul utiliser parce que amuñu koom-koom bi amuñu kàttan bi loolu mooy suñ jafe-jafe et puis secteur privé national ñu dëkk Sénégal liggéeyee Sénégal am xarañte gi am yéene gi nga jox leen marché yi parce que marché yu bëri dañuy gis ne ne ne ñi ci biti ñoo koy yore et puis secteur privé mënuñoo liggéey tant que koom amul développement mënul am. te koom-koom pour mu am nit ñi ñoo koy liggéey te koom-koom boo xam ne du toog Sénégal day dem kooku loolu moo tax ñu dem ba benn instant te kii jiite aussi dafa war di dem di seeti nit ñi di waxtaan ak nit ñi. Mm-hmm. mais duñ ko dégg du wax ak nit ñi dañuy toog rek suba ñu décider. ñu dem ba benn instant bunge nañ ko bunge nañ ko dëgg dëgg liggéey na affaire infrastructure moom kenn mënatu cee wax waaye li war a jiitu pour ñun defu ko mooy koom-koom bi entreprise sénégalaise ñu jàppale leen sénégalais yi ñu créer ay emploi ñu créer des richesses pour que ñu mun a am li ñuy wax développement. d'accord mooy lu jëm ci wàllum industrie. waaw industrie si la bokk économie bi lépp la daal. d'accord mais dañu gis ne euh, euh, kër gu si mel ni Sonacos. ak euh, post boo xool ñu nekk ay société nationale mhm. fi mu ne nii ñoo ngi ci ay situation yoo xam ne yu doy waar la ku wax industrie ba pare kër gi di Sonacos bëgg nërmeelu yow ban gis-gis nga ci am. mooy que dañu war a tegaat lépp ci suuf Sonacos su amee blocage. dégg naa keroog sax directeur bi wax ne ñu ngi dugg ci anacarde beeg yooyu pour mun a liggéeyloo nit ñi mais ñun suñ priorité actuellement comme pays sous-développé mooy que ne nit ñi liggéey lekk am lu ñu lekk ba pare ñuy doog a seet nan la ñuy développé sulaa su amee jafe-jafe nañ tegaat lépp si suuf de woo sénégalais entrepreneur sénégalais ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci affaire industrie agricole wax leen lan lañ war a mën a def pour suqaliwaat Sonacos parce que duñu leen rek si gerte yi mën nañ ko développer ibbi ko def si yeneen i affaire mais wax. comme yan. ana quartier bi euh, ministre bi wax léegi ni euh, bi bi bi euh, directeur général bi wax mun nañ jël outil de production bi orienté ko si yeneen i produit pour ko mun a développer bañ a yem rek ci diwlinu par exemple gerte gi mun nañ def soja mun nañ def tournesol mun nañ def yeneen ak yeneen ak yeneen mais nañ jël ñi am xam-xam ci loolu ñu jox leen Sonacos ñu ne leen liggéey leen mais doo jël koo xam ne ne amul xam-xam ci loolu nga jox ko Sonacos wala nga bëgg mu yëkkati Sonacos day metti problème yooyu ñoo la ñuy am post mu ngi fi ñu leen état bi dimbali jox leen xaalis bu doy ñu fay salarié yi mais fay aussi clients yi nga xam ne ne seen xaalis a nga fa ñu jox leen ñu mën a liggéey yooyu yëpp dafa nekk ay yoo xam ne ne yooyu lañ war a jiital toog waxtaan doo toog ci kaw rek dee parce que dafa am ñoo xam ne ku nekk rek li nga mën yow mënuloo nekk ci kaw rek mën lépp ku nekk danga koy jox lim mën lim jàng li xam-xamam ak ñu toog ñu waxtaan ñu euh, sànq euh, Amadou Bassirou Ndiaye yaa ngi wax ci lu jëm ci wàllum liggéey bi demee noonu wàllum agriculture bi mhm. es ce que taxawaay bi ci état bi waroon am dëgg ci agriculture. est-ce que jàpp nga ne bu ko amoon dina am ay métiers agricole yu baree bari yoo xam ne euh, xale yi danañ si mën a dem. waaw léegi nag yow yaa ngi dugg dans le cœur du problème xam nga agriculture bi dañu jël ñetti kii rek dañu jël gerte ceeb dugub un peu mais soo gisee foño bi mais foño bi dafa riche am nañu ay savant yu nekk fii soo gisee sanu si jaxate li mu dafa dafa dafa jël poño bi jox kii de transformation te outils de transformation ñu mun a diversifier suñu agriculture jël xale yi former leen xam nga aussi doo jóg rek day nekk agriculteur jox leen les moyens ñu toog xale soo demee marché HLM xale yu bëri ñu ngi jógee ci àll ba ñëw parce que lu ñu liggéey seen dëkk yi moo tax ñu ñëw fii toog fee ñuy fanaan ci biir marché bi def dans des conditions très difficiles di dans de conditions très ñooñu war nañ leen mën a jël yóbbu leen jàngal leen métier ne leen lii ngeen war a béy lii ngeen war a béy lii ngeen war a béy su boobaa yéen seen biir seen dëkk rek déjà di ngeen am koom-koom di ngeen am sécurité alimentaire di ngeen am souveraineté alimentaire déjà nag aussi di ngeen fa mun jënd di jaay mais déedéet defuñu ko il faut que toujours rek ñu xam ne ne yow. état ci échec am na lu mu ci jéem. mais ba léegi gisaguñu solution xam nga laaj moom dafay mel ne dafa courage les bras deful dara état def na na quand même mu ngi jéem waaw mu ngi jéem mu ngi jéem mais deful lépp te ñi mu war a woo ñu nekk toppatoo mbay mi woowu leen borom xam-xam yi woowu leen d'accord hmm. euh, yow euh, da nga nekkoon euh, ci ñiy jàppale président Macky Sall nga nga nga génn si hmm. Euh, sécurité alimentaire bii ngay wax ak autosuffisance alimentaire dafa am loo xam ne daf ko diggoon askanu Sénégal mais gis nañu ne euh, tey la askanu Sénégal gën a sonn gis nañ aussi que ne baykat yi sonn nañu euh, gis nañ que lu jëm ci wàllum li ñuy jëggaani bitim réew di ko dundee moom moo gën a bëri gis nañ tamit ne fi mu ne nii ñu toll nii tembe njëg yi dafa yokk ba nga xamante ni lu bari kenn mënu ko laal loolu tamit lu am na waaw njëg yi dafa yokk ñoom ñu ngi doon jël ay mesures sax ne dañuy jéem a wàññi njëg yi et tout ça mais toujours c'est un problème de méthode la ñuy wax méthode c'est-à-dire nit ki mënuloo rek ne yokk naa njëg yi fekk ne suñ gisee boutique yi da ngay dem si boutique yi ñu ne la yaa bëgg suukar ñu ne la ah suukar bu mokk bi amatul alors que ñu ngi ko denc parce que dañ jóg yokk njëg bi ne leen da ngeen koy wàññi da ngeen di wàññi njëg yi da ngeen di wàññi su soo ko wàññee ñoom duñ ci gis seen bopp bu ñu ci gis seen bopp prix bañ amoon rek la ñuy garder donc dañuy dañuy créer rupture artificielle ñu am jafe-jafe mooy toujours ce problème laa yow da ngay toog si kaw rek décider lii la ñuy def lii la ñuy def lii la ñuy def c'est que yaa ngi jéem mais woowal ñi xam ñi am xam-xam ci loolu xam nga yow Abdoul Khadir su ma ñëwee tey jii man maa lay interviewé man maay def journalisme damay am problème parce que du sama métier. waaw mais mais tamit euh, Amadou Bachir Ndiaye man président Macky Sall xanaa mënut ta am ay conseillers munta am ministère de l' agriculture wala ministère euh, de nangam du commerce wala wala xeet beneen xeet ministère hmm. am na ay experts quand même am na ay spécialistes am na ay conseillers kon ñi ko ñi muy laaj dañu amul xam-xam wala daf leen laajut euh, laajul ñëpp xam nga dafa am ñoo xam ne ñoo nekk ci terrain bi am ñoo xam ne ñu nekk ci ci bureau yi la et la plupart du temps ñi nekk ci bureau yi la ñuy laaj que ñu nekk ci terrain bi ñan la war a laaj dañ war a laaj ñëpp CNCR yooyu ñooñu ñooñu dañu xam dañu xam mbéy yenn agriculteurs yi nekk sur le terrain da ngay dem laaj leen ni mu defoon ba am yoonu yokkutee boobu mu nekkoon neexoon Sénégal yëpp. da dem ci terrain bi di xool nit ñi di ak ñoom dugg ci biir um, néeg yi néegu ñax yi waxtaan ak nit ñi xam liñ bëgg seen bëgg-bëgg wax ñoom mais loolu lañ defatul dañuy toog ci bureau yi rek di décider def seen programme comme ça nit ñi liñ bëgg bëgg bëgg duñ hmm. donc pour man il faut ñu wàccaat. mooy li ñu waxoon ne euh, bi ñu defee nommé premier ministre bu bees bi ñu ngi ne dañuy def nouvelle stratégie de développement du secteur privé le premier ministre bi joxe nouvelle stratégie bi fekk fin d' année. 2022 ñu ngi toog ba léegi nouvelle stratégie boobu amul. Ah. man ñun coalition juste waxoon nañ ne mais nouvelle stratégie boobu lan la dañ koy ajusté waat parce que am na pétrole le gaz wala dañuy woo acteur secteur privé national yëpp waxtaan ak ñoom toog ñoom laaj leen ñoom lan mooy seen xalaat. secteur privé national dañ leen war a jàppale ñu ngi wax contenu local ñu ngi wax ne ne dañ war a defaraat code de marché bi dañ leen di war a jox au moins cinquante pour cent des marchés wala boog sous-traitance su loo xam ne ñun amaguñu xam-xam bi mun ko jox ñi ci biti mais suñ ko joxee ñi ci biti nañ ñëw ne leen ah da jox nañ leen ko waaye secteur privé national bi di leen ci jox cinquante pour cent sous-traitance bi ñoom ñoo koy def te di leen jàngal nan lañ koy mën a defee pour que su subaa ñoom mais loolu noonu ñun démarche boobu la ñu wax. Ah, mais est-ce que tey secteur privé national bi euh, état bi est-ce que wegg na dëggantaan secteur privé national bi ak est-ce que mën leen di jàppale. ah mu ngi leen di jàppale moom da nga koy laaj <laughs> ngi leen di jàppale moom da koy laaj euh, acteur secteur privé national. parce que su ma gisee. entrepreneuriat waaw xaaral xaaral ma expliquer la c'est-à-dire su ma la nee da nga koy laaj ñooñu da soo déggee li nekk ci journaux yi li ñuy wax di ñaxtu tout le temps donc jàppalewu leen. wala bokk li mu leen di jàppale doyul. bërki démb rek le organisme bu bees bi C50. demandé que nañu réviser le code des marché parce que pour que ñu mun a am 50 pour cent au moins des des des marché de la commande publique. pour que ñu jéem a xoolaat loolu donc jàppale bi des na. mais mais mais wàllum entrepreneuriat. Mm-hmm. Euh, ndax yéen justice. Mm-hmm. Euh, solidarité entrepreneuriat ngeen ngeen woote. Mm-hmm. wàllum entrepreneuriat tey ban solo la am ci réew mi ak tamit ndax état ma def na ci politique bu baax. des na lu bëri. des na lu bëri bëree bëri bëri xam nga Abdul Xaadir balaa ngaa nekk ne naan nekk fa nit ki mënuloon ne da ngay développé te nit ñi amuñu xaalis xaalis lan moo koy liggéey création de richesse ngay def soo jëlee jigéen ñi nekk euh, euh, Saalum ci monde rural nga dem dëkk boo xam ne ne ay buy rek moo fa am nga jox leen machine wol benn machine wol alors que mënoon nga leen jox defar créer leen semi industrie agricole mooy que ne suñ jëlee buy bi dinañ ci am diwlin dinañ ci am pëndax euh, euh, mm. pëndaxu ba dinañ ci am jus dinañ ci am c'est-à-dire loolu mooy créer richesse loolu mooy indi xaalis mais su fekkee chaque août trois mois nga jox leen bourse de sécurité familiale vingt cinq mille toog xool leen jox leen benn machine ñuy ñuy dëbb mais duñ duñ avancer toujours dañuy soxla ñeneen yi toujours problème de loolu entrepreneuriat foofu lay commencer xale yu ndaw yu nekk fii nga jàppale leen ñi liggéeyul mais xale yi jóge suba ba ngoon jóge parcelle di dox ba biir ville di yore seen ñeenti dàll pour jaay ko pour am ci fukki dërëm juróom dërëm te la plupart soo gisee am nañ bac am nañ bac plus de woo leen di boole nga laaj leen lan lañ bëgg def nga jàppale leen soo leen def bourse chaque mois sax nga jox leen bourse vingt cinq mille trente mille mais nga jàppale leen métier wan leen ne nii la wut koo xam ne mag na xam-xamam màcc na ci loolu mu jiite leen jàppale leen ñu am di jënd di jaay def industrie def ay entreprise en fait loolu moo manqué yow Abdoul Khadre xam nga yan organisme ñooy toppatoo entrepreneuriat Sénégal xamuloo ko duñu communiquer nit ñu nit ñi tax ñu def ko waxuñu leen ko loolu nag lépp mooy li tax ñu ñu bàyyi benn bokk waaw mais ñun il faut que ñu am suñu démarche bu bees ku ñu fekk ci loolu nag ñu ànd ak yow. d'accord jërëjëf euh, Amadou Bassirou euh, Ndiaye euh, yow yaa jiite coalition juste ba tey dafa am loo xam ne président Macky Sall ci digg yi mu woon. ndax bi ñu waxee wàllum sécurité alimentaire ak autosuffisance alimentaire gis naa ne amul ci dëkk bi amul ci Sénégal léegi beneen bi mooy daf ñu diggoon bonne gouvernance yoreen woo xam ne yoreen wu sell la waaye li nga xam ne remarqué nañ ko ba mu indi woon fii lu mel ni OFNAC mais dañu remarqué ne nag dafay def ay rapport ay yoonu yoon épinglé ay nitu Macky ci lu jëm ci wàllum euh, luubal alalu askan wi rapport Cour des comptes aussi ñëw na fi am ñu mu épinglé si ñoom ba mbir mi sax ñoo ngi wax ne yóbbu jébbal nañ ko ñi nga xam ne euh, ñooy waa dikk ak yeneen mal malgouvernance yoo xam ne nemmeeku nañ ko fi euh, yow lan moo ci sa xalaat bon ñun suñu xalaat xam nga coalition juste dañu ne duñ nekk fii rek di xarab def la lii amul lii amul lii amul dañuy seet li jëmalee Sénégal kanam ñun bañ a nekk toog statique li ñuy wax statique bañ a bouger dañuy joxe ay solution bi ñu waxee problème mu Cour des comptes bi mu génnee dañu ne. mais yow mal gouvernance gisoo ko si réew mi. non ne gisuma su réew mi de xaaral ma <laughs> waxuma ne gisuma mal gouvernance mal gouvernance am na ci réew yëpp waxuma ne ne réew mi dañu ne procureur OFNAC daf ko jox ay ay rapport yu dul jeex du xaaj ah. ñu ne temps wu euh, kii bi mu fa nekkee ñu ngi koy étudier ñu wax cour des comptes ñëw na procédure normal xam nga soo amee réew di ko jiite moomuloo ko yaa koy jiite foog mu leer aussi réew mi ñun suñu réew la ñoo ko moom li fi nekk ñun ñoo ko moom ki ñu jiitee dañ ko fi teg pour mu jiite ñu waaye moomul réew mi amul kenn ku moom réew mi lu dul sénégalais yi ñu ne ñu ngi topp wax problème mal gouvernance na lan mooy blocage yi ñuy wax ne ne procureur ndax dina ko defam du ko def du ko def ñun ñu ne coalition juste gis nañu ne da yeneen réew yi même Guinée sax def nañ ko parquet économique et financier ce qui veut dire que ne su amee dossier yu mel noonu directement parquet bi day demander juge d'instruction mu instruire parce que problème bi mooy est que procureur dina ko joxe ñu instruire wala ñu bañ a instruire est-ce que ñooñu dañu luubal wala luubal parce que présomption d'innocence dafa am moom toujours mais nañu instruire suñ problème fi nekk actuellement Sénégal mooy lan mooy que est-ce que dinañ instruire wala duñ instruire ministre bi nee na texte yi régir cour des comptes mooy suñu amee gisee ne dañu yaakaar ne fii dañu luubal ñu saisir ministre des justice ministre des justice saisir parquet procureur xool ndax dañuy def enquête ak wala duñu def enquête mais ñun dañ ne loolu lépp daax na mais ñun su dee ñun la parquet économique financier la ñu def jox leen possibilité of nag pour de comptes IGE IGF ak yooyu yëpp suñu gisee loo xam ne dañ yaakaar ne lu ba la rek du saisir directement euh, procureur parquet financier ne ko saisiral juge d'instruction dafay am obligation saisir du juge d'instruction mu am instruction donc dootuñu am problème yooyu donc ñun solution la ñuy wut xam nga toog di wax ne ne ne am na gouvernance ak mal gouvernance am na loo xam ne lu ne fànn kenn du ko jeex mais nañ seet lu ñuy jëmale kanam waaw mais opposition aussi dafay dénoncer ay malversation ba pare di def ay proposition waaw mais ñun opposition bi ñu gis nii fi mu nekk nii actuellement ñun suñu opposition de ñun euh, suñu bopp la ñu naw parce que ñun au moins ñu ngi contribuer ñu ngi wax ne ne tey jii de am na problème. mais est-ce ngi dénoncé. ah ñu ngi wax am na problème du dénoncé suñu ne am na problème dénoncé la am na problème nit ñi ñu ngi jiixi jaaxa si ne est-ce que cour des comptes dinañu lim rapport dinañ ko toppal duñ ko dina teg leen partie économique et financier moo gën a gaaw suñ ko defee dootuñu amati ce problème là. d'accord. Euh, xam nga euh, Amadou Bachir Ndiaye président Macky Sall ci rentrée des causes tribunaux dañ ko waxoon na ko magistrat yi que dañu bëgg ay réformes ci cour de comptes xam ne ñoom bu ñu defee seen liggéey mu saisir ñoom ñu saisir directement procureur topp dossier bi pour mu gaaw ba pare am transparence mais loolu dañu leen ko daal di lankal ci ku bëgg bonne gouvernance yorin wu sell est-ce que war ngaa bañ loolu beneen bi moo si beneen bi mooy corps de contrôle yi nga xamante ni dañ ko fee teg di leen fay alalu réew mi ñooñu dañuy def ay rapport ay magistrat ñoo fa nekk def seen i investigation jël rapport jox ko président Macky Sall xamal ko na ko lii ak lii moo ci am ñii ak ñii njot nañu ne dañu def lubal ci alalu askan yi mais dossier yooyu dañuy gis ne mën na fa nekk ay at te kenn du ko laal kenn du ko tudd bi ci gën a fës di 94 Mamour Diallo yi. 94 euh, Mamour Diallo yi. mu cee wax ndax liiruma ko gisuma ko. dégg naa daal fan yële passé ñu ne cour suprême euh, jox na ko dëgg mais globalement cour des comptes inspection générale de finances corps de contrôle yi ñun réforme bi ñu wax parce que économique et financier day régler problème yooyu yëpp ngay wax. cest à su ñu gisee ne ñoom am nañu soupçonné ne dëgg la wala du dëgg que ne problème am na rek. nañu saisir directement procureur ne ko demander juge d'instruction mu instruire procureur dootul am sax def naa ko def am du ma ko def juge d'instruction la jox ay moyens parquet économique jox leen ay moyens yu doy mu instruire pour seet donc ñun suñu problème réglé nañ ko. la. te ñoo mais mais ce que je dis moom loolu mooy problème bi c'est-à-dire parce que économie financière da nga fay yóbbu ay magistrat mais da nga yóbbu yeneen i spécialiste su dee affaire ay détournement de deniers publics mais xam nga corps de contrôle yi état dafay am nu muy doxee dafa ak ay règles ay procédures su corps de contrôle yi ñëwee gis ne ne ah ñun de soupçonné nañ ñooy ne ñoom administration lañ nekk il faut ñu saisir justice mais justice soo ko joxee day wax ne ne ah, ñii de nii lañ lii lañ gis daf ko détourné wala détourné wu ko déedéet ah nañ xalaat ne ne moom détourné wu ko tant que amuñu preuve donc ñun dañuy gëstuwaat xool. waaw mais mais parc financier boobu ngay wax bu ñu leen doon nommé kan moo leen di nommé. Euh, kan mooy nommé parc économique et financier. Ah. mais seen i naataango seen i naataango ñi nekk euh, dans le pouvoir judiciaire mun nañ leen nommé mun nañ jël de spécialistes mun nañu seet sax def euh, appel d'offre. d'accord appel d' accord léegi il y euh, rapport à waaw mais léegi dossier Mamour Diallo boobu moom euh, acté wuñ ko jàpp naa ne ba muy dem ay cour suprême cour suprême ak yooyu ndax dossier boobu procureur ubbiwu ko man liir naa rapport boobu mais yow en tant que homme politique. Mhm. rapport bi ma lay wax ni ci internet bi maanaam ma ngi ci site waa OFNAC man nga ko fa liir en tant que koo xam ne homme politique nga mhm. war a gëstu nu ñu yoree alalu réew mi waaw wala déet mhm. mais yow de manière générale alalu réew bi nii ñu ko yore jàpp nga ne leer na wala leerul Abdou Khadre xam nga man sama xam-xam dafa am fu mu yem sama xam-xam mooy nee nañ rapport am na ma ne rapport bi am na ñu ne ah ki luubal na ma ne ah ki luubal de ku nekk da nga am fa nga fa nga war a yem mooy que nañ jox ñi war a seet ndax luubal na ñu seet ñu seet ne suñu nee luubal na. ñu yóbbu ko justice ñu bàyyi justice ñu juger. voilà donc ñun dañu ne loolu lépp suñ ko boolee tënk ko. li gën a gaaw mooy ñu def parquet économique et financier comme ça bés bu ñu amatee soupçon rek parquet économique financier la ñuy saisir mu mu mu jël juge ñu commencé estu ñëpp xam ne ne leer na xam nga mënuma la wax lu ëpp loolu 94 milliards rek. lëleeg leneeg leneeg mënuma la wax parce que man liiruma ko dama lay wax ne ne liiruma rapport bi dégg naa ñu koy wax mais dégg naa aussi keroog ñu ne cour suprême euh, ah. nee na ko kii maintenant ban la ban la ci parce que bëri na 94 milliards de waaw mais xam nga yow mhm. sànq laaj naa la lu jëm ci wàllum euh, dund gi mettiwaayu dëkk bi yaa ngi ko yëg mais yow jàpp yow boo doon def tey euh, ndax sànq ne nga Macky Sall def na bilan am na lu mu def ci wàllum infrastructure wàllum xeex corruption guerre lu bala alalu askan wi ndax yow si sa xalaat ndax homme politique ci dëkk bi nga dëkk yaa ngi lire journal eh, yaa ngi yaa ngi observé yaa ngi xool yow lan nga ci jàpp mais li nga si jàpp moo tax ma proposé parc économique et financier c'est-à-dire am na lu des am na lu bëri lu des et que bugguma tey suba rek Abdoul Khadre ne ma man mii de foog naa ne dañuy protéger kii dafa am mécanisme boo xam ne suñ ko tegee rek dafay régler lu bëri. d'accord mais léegi rapport yi fi am nii Cour des comptes bi ñuy jël ba jël nañ dossier bi jébbal ko dikk ndax jàpp nga ne dina mujj fenn. mais ñaata euh, nit ñoo luubal ñu tëj leen prison te toujours procédure bii lay tout lay lay lay lay lay jaar cest léegi nag dañ ko médiatiser c'est-à-dire ñu xalaat li yokk nit ñi ñu médiatiser ñu ñaata nit lañ tëj prison ndax dañu def détournement de deniers publics mais kii ci nguur la ñu àndal ñu ànd nguur ñu bañ a ànd ak nguur c'est-à-dire dafa am ñoo xam ne ne ne ne ñoom ñooy yore dépense publique suñ amee problème dañ leen di jàpp suñ ne dañ leen soupçonné di tunaaw di combien de fois ngeen ñu ne telle personne euh, yore woon na benn kees toj na ko ne jël nañ ko tëj nañ koy tus mais procédure bi lay te cour des comptes mooy ñoo gis wala inspection interne ministère yi gis ne ne am na problème ñu saisir ministre de la justice mu saisir procureur procureur saisir DIC wala commissariat ñu def seen i enquête ñu dem juger tëj donc ñu bëree ngi ci biir prison yi détournement de deniers publics lañ leen tëjee. mais ànd ak nguur ak bañ a ànd ñooñu ànd ñoo nguur administration. ak ànd ak nguur ak bañ a ànd nguur xam nga soo ànd ak nguur tey nguuru tey jii suba dafay jeex keneen daf fiy toog. d'accord léegi est-ce que laaw si ayub mag Sall gi si nguuru mag Sall gii hmm. ndax yow jàpp nga ne rapport yi dina dem ba sa cëppaandaw ga ci régime Macky Sall la waa wala déet. su demul ba ci cëppaandaw ga su beneen nguur ñëwee rek yóbbu ko ba ci cëppaandaw ga. d'accord waaw. jërëjëf euh, Amadou Bachir euh, Ndiaye yow yaay jiite coordonnateur yaay euh, président coalition juste beneen bi mooy président Macky Sall dafa am loo xam ne daf ko doon naqarlu bi muy nekk ci kujje gi mooy lu jëm ci wàllum àq ak yelleef doomu aadama yi seen liberté mais ñu gis ne tey fi ñu toll nii tembe dafa bëri ñoo xam ne ñoo ngi leen di xañ seen àq. ak seen yelleef di tere ay manifestation di jàpp ay nit ci kaso bi nit wax xalaatam aussi ñu jàpp ko lu jëm ci euh, àq ak yelleef doomu aadama yi yow ban gis-gis nga si gis ne moom la ca nguur gi di doxale euh, su dee nguur gi mooy état bi administration bi ñooñu yëpp mhm. ñu ngi suivre règles yi parce que dañuy wax ne l'administration est écrite loo décider rek ne da nga koy te tere wala da koy joxe da nga koy bind soo ko bindee ñu gis ko su fekkee ne préfet bi suñu waxee affaire marche bi parce que affaire marche bi moo gën a intéressé wala ay organisation meeting ak yooyu dafay tere dafay teg si lenn la lii moo tax ma tere ko parce que ñoo décidé ne ne ay sénégalais lañ ñoo moom Sénégal Macky Sall moomu ko préfet bi moomu ko Ousmane Sonko moomu ko Abdou Khadre moomu ko Bassirou Ndiaye moomu ko ñun ñëpp moom Sénégal donc pour ñu dëkk ci biir Sénégal gi il faut ñu am ay règles yoo xam ne ne moo ñuy permettre ñu mun a vivre dem ci kaw suñ d'accord ñun ñëpp ne règles yooyu am na ñu jël règles yooyu am ñu ko jébbal ne leen ah yéen de leen ko sàmm pour que ñun ñëpp ñu mun cee jariñu bu ci kenn jariñu au détriment de keneen règles yooyu suñ ko tegee yow préfet jox nañ la ci pàcc sa gox ba nga nekk nit ki ñëw ne man dama bëgg a marché nga bind ne ko waaw doxal wala nga bind ne ko déet bul doxal parce que lii moo tax lii moo tax lii lañ bind ci règle bi lii mu lañ bind xam nga nee nañ marché yi lañ gën a autorisé soo xoolee statistiques yi liñ autorisé si marché moo ëpp liñ tere marché mais saa yu ñu teree rek am na fu ñu ko bind est-ce que liñ ko liñ li tax ñu tere ko yenu na maanaam wala yenuwul maanaam problème bi foofu la nekk mais je pense que ne def nañu ay jéego maintenant nag tolérance su dëkk bi nettee nit ñi am jafe-jafe jafe mën nañu tolérer def tolérance jéem a kii yooyu mais est-ce que def nañu non je pense pas que ne ne ne ne ñu mënuñu dëkkuñu ci àll bi daal ñu ñu ngi dëkk ci fii te Sénégal gi ñu ñoo ko moom daal man maa ko moom yow yaa ko moom samay doom ko ñeneen na ko moom. waaw ah, léegi euh, Amadou Bassirou Ndiaye nguur gi état Macky Sall ah. ñoo ngi salfaañi ak ak yelleef doomu aadama waaw wala déet see gis-gis yow. am na foo xam ne nit ñi ñu ngi wax ne ñu ngi ak euh, salfaañee ak yelleef doomu aadama am na foo xam ne ñuy wax ne ñu ngi koy sàmm man sama gis-gis mooy que ne état lañ nekk am na ay règle saa yoo xamee ni nit ki mu ngi jalgati règle yi nañ ko teg diñ ko war a teg pour que ñun sénégalais yi ñi moom réew mi parce que du réew mi du réewu Macky sal du réewu Abdoul Khadre xaaral dégg ma wax la rek du réewu Macky sal du réew Abdoul Khadre du réewu keneen réew mi réewu sénégalais la ñun ñoo ko moom kenn moomul su dee am na règle yi bind nañ ko nañ ko appliqué su dee binduñ ko nag ku ko ku ko jalgati nañ nañ la teg daal. kon nag yow gis nga fii nii amuñ benn problème. non am na problème fu ñu nit ñaari nit ñetti nit nekk dina am problème mais nañu jéema a moom laa lay wax nee naa nañ jéem a seet euh, jéem a jàpp waxtaan juboo calme parce que jàmm moo ñu jig mais nag nañu xam ne aussi un état ay règle la. li nga war a def war nga ko def li nga a def loo ko def te saa yu ñu la teree dara rek am na fu ñu ko teg. léegi man naa jàpp ne teguñu ko fenn mais wàllum politique lañ ko teg. mais lu tax nga wax ne teguñu ko fenn wàllum ban exemple nga may jox bi mu nekk di exactement. non dafa bëri exemple yoo xam ne. non wax ma rek benn exemple yoo xam xam nga tey nit ñu bi euh, waa Pastef doon def. waaw fan. Euh, Mbacke. Kër wala Mbacke. non bu bu euh, mitin bi nga xam ne moom lañ doon def. waaw. même avant loolu tere nañ fi benn meeting benn rassemblement palace de l'indépendance. waaw bi ñu teree place de l'indépendance. nee nañu foofu dafa am ay travaux yoo xam ne dafa am te une semaine ci avant am na rassemblement boo xam ne autorisé woon nañ ko foofu ñun li ñu gis mooy dafa bëri ay rassemblement yoo xam ne ak ay toogaanu ñaxtu yoo xam ne ñu bari ñoo koy sàkku ñu leen koy tere. waaw mais yow boo euh, gisee le contraire amul problème. non du question gis le contraire xaaral ma Abdou dama am benn benn philosophie et puis ñun coalition si suñ noonu la ñuy doxalee mooy que ne si état lañu nekk dafa am ay règles yu ñuy lié maintenant tere pour tere rek ki koy def dafa xamul ne ne ne ne nit ñi ñu ngi leen di déglu ñi moom Sénégal ñu ngi leen di xool sooy tere di tere rek ki ngay tere da day gën a jóg nit ñi dañ koy gën a bëgg. comprendre nga. donc loolu amul problème mais maintenant su fekkee danga nga tere parce que tey jii fii nee nga yow place de l'Obélisque par exemple nee nañ travaux BRT tey mu nga fa. dafay am blocage dafa nar a indi xat-xat dafa nar a indi problème nañ wut feneen loolu yenu na maanaa su fekkee ne dañ ne ne bu leen fa def dara parce que dañ bëgg tere leen rek mais si ñoom lay xëppu ça c'est clair et si ñoom lay xëppu donc loolu amul problème mais li ma bëgg ma wax ne mooy que ne ni tant que ñu ngi tere rek nañ ko teg si fu yenu maanaa fu taxaw xam nga euh, opposition bi Pastef du moins def nañu meeting Kër Massar kenn terewu leen ko mhm. euh, majorité bi def nañu meeting euh, Pikine kenn terewu leen ko bërki démb def bëggoon nañ def seen meeting Mbàkke ñu tere leen ko démb waaw ñu ñu tere leen ko ne leen lan ne leen parce que trois signatures la xam nga mënoon nañ leen bañ wax trois signatures mais règle bi moo bëgg que ne ne 1974 1974 yaakaaruma ne waa Pastef yu bëri euh, juddu woon nañ 1974 lañ def règle boobu donc biñ koy def defuñ ko woon pour jiitu réew mi defuñu ko woon pour Ousmane Sonko defuñ ko woon pour waa Pastef defuñ ko woon pour waa Benno Bokk Yaakaar dañ ko defoon pour sàmm ak ak doomu aadama yi Sénégal yi nekk fi kon ki ki def euh, préfet bi def code pénal la wax 1998 xaw ma wax na wax noonu donc loolu doo mun a wax ne ni 1974 donc dañ ko doon préparer la passé non biñ leen di bàyyi Kër Massar mais li tax ñu bàyyi leen Kër Massar parce que réunir woon nañ condition yëpp pour que ñu def ko sans problème président euh, Pastef bi sax mu ngi wax ne ne euh, LG yi ñoo ko jàppale ba dugal ko ci biir. mooy ah, léegi bu léegi bu Mbàkke bi. Ah. préfet bi mu xoolee ne amul trois signatures est-ce que yow si sa gis-gis ak tension politique bi mun compréhension mun doon am mu woo leen pour ñu ratifier voilà c'est là où ñu wax ne ne nañu calme nañu bal à terre nañu calme nañu jéem a seet fu ñu mun a jàppalee nit ñi rek ñu am jàmm nañ leen jàppale que ñu bañ a am problème mais na nga xam ne jalgati nga xam nga waa Pastef fii ngay wax xam nañ ne jalgati nañ parce que biñ leen euh, wax euh, tere ba pare dañ bindaat lettre demande pour le 24 def ñetti signature ba pare seen président ne dinañ saisir cour suprême parce que ak yelleef doomu aadama moo ko permettre suñ ko teree mu demandé chambre administrative euh, cour suprême mu demandé chambre administrative cour suprême donc xam na ne ne mu def jaaduwul parce que ku bëgg a jiite réew mi aussi na ah, règle yi fi nekk su baaxul da nga koy topp ba bëgg a taw nga jëm koo change d'accord mais préfet bi dañoo gis ne ma ngi rejeté demande boobu le 7 bàyyi ba le 9 doog leen koo doog leen koo yëgal xam ne diggante bi sax mënoon nañ fee bañ a am temps pour saisir euh, saisir euh, cour suprême. cour suprême moom en en en une heure de temps ko saisir ça pas problème ak euh, invention yu bees yooyu xam nga foofu mooy. li ñuy wax su fekkee ne procédure bi dafay wax ne ne soo ko defee tey le sept la neuf nga leen ko war euh, a wax vingt quatre heures avant am nga possible toog ba vingt quatre heures avant doog leen ko wax mënuñu wax ne préfet bi jalgati na su fekkee ne daf ko waroon wax le sept nag daf ko le neuf ñu wax préfet bi jalgati na mais loolu yëpp ay question la mais cest nañ dawal yërmande côté yëpp xam nga man sama problème mu Mbàkke tey jii mooy lan Sénégalais di liggéey ci station Total bi nar a toog mois deux mois trois mois duñu am salaire ñi liggéey seen champ nar a toog un mois deux mois trois mois quatre mois duñu am salaire waa Sonatel yi liggéey foofu te ay sénégalais ñoo fay liggéey tey jii réew mi FM matériel bi fi nekk yëpp defaree wuñ ko Sénégal nañu liggéey pour que ñu mun di defaree matériel yu mel noonu Sénégal sénégalais di si jariñu. loolu xew kan moo ko waral. non attends ñun ñëpp ko waral ñun ñëpp ko waral ñi jàpp ak ñi jàppul ñi forcé ak ñi forcé parce que réew soo gisee ne ne su fekkee ci sa nafsu sa bopp rek ngay xalaat doomu duñ mus dem kanam te dafa bëri ñi fi individualiste dafa bëri complètement dafa bëri. fu mu munti doon problème bi mooy loolu c'est-à-dire man sama problème fi mu nekk nii mooy ñooñu ñi nga xam ne ne dinañ toog tey jii nii dinañ am jafe-jafe dépense. dañ am jafe-jafe te yow ñi nga gis ne ne ne dañ la tere fii woowuloo ne da ngay def woowuloo nit ñi mais ñi la topp genn wàll gën a topp yëpp xamuñu sax li tax yow li ngay fi ngay jéem. est-ce que euh, Amadou Bassirou Ndiaye mos ngaa gis Macky Sall ba léegi ñu tere Benno Bokk Yaakaar am mitin. Eh, eh, Mbàkke bi dañ ko dañ ko tere. Benno Bokk Yaakaar. waaw <laughs> Mbàkke dañ ko tere. non Mbàkke Benno waaw. non wa non waa bind. waaw ah. Baara Dooli la xaw ma kan ban sëriñ aussi bind. responsable benn bokk yaat ne ñoom tamit dañuy def meeting même jour. waaw mais xam mais mais xam nga ne loolu. yow yaa ma gën a xam ne sabotage la. sabotage politique la vraiment. Euh, Amadou xam ne sabotage politique la te man mun na doon sabotage politique xam nga. est-ce que mos nga gis benn ñu bind ne dañuy def euh, manifestation ñu tere leen ko na leen trouble à l'ordre public wala leneen ak leneen. mun na am mun na am. mun mosuma ko gis. waaw yow mosuloo gis man dama ne mun na am. dama ne mën na am mais dama leen ne bii nii mbi meetingu Mbàkke bi mun na doon sabotage de dëgg-dëgg du ma wax loo xam ne mun na doon sabotage mais tere nañ leen ko uh-huh. tere nañ leen ko parce que xam nga lu tax leen ko waroon tere sax c'est obligatoire bi suñ demandé Pastef ñu leen non doon def seen meeting ñu jël waa benn bokk def ko problème dafay am parce que yoon non dafay am ñu tere leen ko xam nga euh, euh, euh, Amadou Bachir Ndiaye hmm. ay nit la ñuy waxal ay nit ñoo ñuy déglu. ñi moom réew waaw xam nga ne tey bu dee Pastef dañu demander ne dañuy def manifestage meeting. ci benn bërëb. keneen jógee ca làng ga. ñëw bind préfet na dañuy def ñoom ti même meeting ci benn bërëb. xam nga ne loolu sabotage sabotage mënu ko passé beneen bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fi opposition bi dañuy sàkku ne dañuy def rassemblement mais dañuy gis ne préfet yi. bala ñu leen di jox na leen autorisé nañ leen ko mën nañoo bàyyi ba la même jour bu dee vendredi à 15h ñu xëy ci vendredi bi jox leen ko mais duñu leen ko jox mukk deux jours avant avant meeting bi loolu nag dañu jàppane euh, bokkul ci euh, sàmm ak euh, sàmm ak yelleef doomu aadama ba pare tamit par parloo da ci faral di am. non du par parloo mun na cee am mun na bañ doon sàmm ak ak yelleefu doomu aadama mais li ma wax rek réew mi ñun ñoo ko moom. ñun ñoo bind suñuy règle ak suñuy procédure ak li ñu war a def. wa waaw voilà ku nekk daf ko war a respecté. gis nga léegi nii tey jii nii démb bi ñu nee barki démb bi ñu nee waa Pastef bi ñu def seen meeting. ñoom xam nañ ne ne seen ak yelleef may na leen ñu saisir cour suprême chambre administrative cour suprême dañ ko def gis nga préfet bu jël décision xaar ba deux heures de temps avant euh, événement di am muy opposition muy keneen dama leen koy wax. daf koy teg fu su ko tegul fu leer am ngeen droit saisir ki euh, euh, cour suprême euh, chambre abyssale cour suprême ah, ah. contesté même s'il faut nga demande ay sanctions contre préfet bi cest dire loolu moom waaw mais xam nga tey ba Bachir ñun ay journalistes lañ ñun dañu xam actualité ñun mosuñu gis Benno Bokk Yaakaar war a organiser meeting ñu jox leen ne leen autoriser na leen ko deux heures wala trois heures de temps avant mosuñu gis tamit aussi Benno Bokk Yaakaar organiser mi taxaw ne organiser nañ meeting préfet ne leen du ko fi defee ñun opposition bi gis ñu leen koy tere. waaw Abdou Khadre yow nag bu dee nag bokkoo ci opposition bi ñu xam ne kon da bokk ci mouvance présidentielle wala la Abdou Khadre bokkuma opposition radicale bokkuma mouvance présidentielle xam nga ma la opposition boo xam ne ne dafay seet li yokk sénégalais yi li tax xale yi mën a am lu ñu dundee li tax ñi nga xam ne ne ne ne ne dañu nekk euh, total ak euh, seen champ bu mbàkke boobu ah. su subaa suñ tax dañu defaratee seen affaire bi kenn du ko toj ba ñoom ñu mun a am lu ñu dundee xam nga man sama problème mooy fi mu nekk ni mooy lan ñun coalition juste dañ ne nañ liggéey ci programme def ba nga xam ne ne sénégalais yi dinañ am lu ñu dundee suñu amee lu ñu dundee ñu doog a xool luy développement déema luy yokk mais soo xoolee nit ki su lekkee benn benn yoon lay lekk par jour mais yow sa yaram war na daw ngay toppatoo say problème individuel kan kan nga bëgg a waxal foofu ñëpp laay wax mu ñi ci nguur gi mu ñi ci opposition bi waa mais xam nga tamit euh, Amadou Bachir Ndiaye booy opposé da ngay opposé non non sooy opposé ça pas dire que yow sooy opposé pour la da ngay mooy lan mais loolu ça veut dire que ne yow sénégalais intéressé wuñ la. non président Macky Sall bi mu opposé dañoo gisoon ne da doon def da doon opposé ndax fii la wax ne policiers yi téye nañ ko mu ñaaj mu ñaaj jàll taxaw na ne ñoom danañu amal seen manifestation par force. bu Ablaye Wade bëggee incité danañu ko déloger palais yooyu yëpp président Macky Sall dégg nañu wax ko fi jamono ji muy opposé. waaw mais loolu président Macky Sall moom la concerné xam nga ñun lu ñu concerné ñun coalition juste mooy que ne tey ji Abdou Khadre fii muy liggéeyee su subaa mu yokk ba yëg ko ki fi nekk yokk ba yëg ko te lool pour loolu il faut que Sénégal yi liggéey il faut ñu bàyyi fàtte suñu bopp il faut rek ñu demande jox seen promoteur bi nii ñu jox ko ay possibilité xam-xam màcc na si si développement euh, euh, économique ñu jox ko ay waaw xam naa président la ñu jóg ñu jox ko ay marché yoo xam ne dina mun a yokk yokk kii mais mu ngi yoree groupe de presse nii groupe de presse bi mënul jóg jóg jóg ba ci kaw a kaw dem fu nekk mu mu samp fa dara créer fa ay richesse di fa créer joxe ay salaire mun nañ ko defal waa waa UGFM mun nañ ko defal waa Walfadjri mun nañ ko defal ñeneen c'est-à-dire loolu moo ñuy intéressé xale yi nekk fii suba ba ngoon jógee parcelle téye ñeenti daal di dox ba biir ville pour am 1000 francs rek ah. loolu moo ñu intéressé que ne président bi def na lii te président moomul réew mi xale yi nag xale yi ñu gisee ne li ñu doon xaar ci président Macky Sall gisuñu ko nag euh, te constitution bi may leen ñu manifester dem ak dikk est-ce duñ ko def amuñu si droit ñoom tamit. su dee daal jalgatiwuñu ak ak yàlla xam nga constitution bi da leen am nga droit marche waaye nañ def loi ak décret boo xam ne dina montré nan lañu marché nan lañ dul marché da ngay désigner maa ngi lay expliqué ne 1974 Abdou Diouf woon sax président Senghor moo doon président xaw ma kan moo doon ministre de la justice bi ñuy bind euh, fii préfet bi wax. kenn nekku fi woon ñu ñi ñëpp kenn xalaatul woon ne nañ yegg fi bay wax li tey gii nii donc defuñu ko dañ koy def pour la postérité pour suba pour ñi nar a ñëw ñëpp donc defuñu ko pour tel nit pour tel nit pour tel nit xam nga man sama problème Abdou Khadre mooy lan bul ma wax opposition beeg Macky Sall def ne xam nga sama problème mooy lan nee ma Bassirou Ndiaye suba yéen soo leen amoon nguur gi lan ngeen di def pour que xale yi mun a liggéey mun a am lu ñu lekk seen Sénégalais yi seen sonn deñ xam nga ñu mun a dem hôpital di am lu ñu fayee xam nga dugg hôpital ñu ne la Euh, médicament yaa ngi nii demal pharmacie jënd ni muy quarante mille cinquante amuloo ko. bëgg a liggéey mais loolu lépp Macky Sall nag. ma ne. comme que naka lañ dénk réew mi na ko réglé ñu santé bi. réglé ñu suñ dund. ñun jox leen ñu réew mi ñu ñu réglé ko. mais li ngay ñaxtu lii Macky Sall moo ko war a liggéey. ma ne su ko liggéeyul ngeen jox ñu ko ñu ñu réglé ko. d'accord c'est-à-dire mais duñ fi nekk di wax ne ne sànni leen xeer ak bu leen sànni xeer ak jox leen def ñu def ñu dañuy xalaat ne ne nañ dem ci àll bi xool nit ñi liñ soxla ne leen lii ngeen soxla ñu nañ jox leen ñu réew mi ñu ñu jiite ko. loolu mooy suñu su suñu mbébét mais du nekk fii di xeex di xuloo di toj di sànq ñu bëri dañ leen di sànq dañuy am problème xam nga li may wax naa ngi koy waxaat di ko waxaat di ko wax suñu tojee total foog ne français yi la ñu toj mais tojuñ français yi français këyit rek lañ def këyit rek lañ def bind jox naa la sama answer autorisé woon marché bi mënu toon gën a meeting bi gën doon yomb non loolu ku nekk sa responsabilité ku nekk sa responsabilité yow soo neen yow da ngay jiite réew yaay xool ndax fii da ngay yolomal wala fii da ngay dëgëral yow yaay xool yow soo nee dama bëgg suba jiite réew yaay xool fii ndax danaa ñii ma bëgg a jiite ndax danaa leen yërëm wala danaa leen teg fitna. d'accord léegi léegi euh, jërëjëf euh, Amadou Bachir euh, Ndiaye yow nañu ñu invité ci rajo Réew mi FM émission pencum réew mi léegi xam nga sànq dama la wax sànq ci wàllum justice justice boo xam ne dafa war a tëddee njaaxaanaay même ñi nga xam ne ñooy acteurs yi ñoom dañuy dénoncer sax injustice bi nga xam ne. dafay am maanaam bu ma la waxee acteurs yi mooy magistrat yeeg yenn magistrat wala yenn avocat yi mais fii ci nguurub Macky Sall dañu gis ne dafa am ñoo xam ne bu ñu àndee ak Macky Sall mën nañoo wax ne nit nañ ko rey te dara du leen ci fekk waaye soo àndul ak Macky soo ko waxee man nañ laa jàpp loolu jàpp naa ne ay yenuwul maanaam dama ne normalul normalul normalul loolu normalul xam nga nit su fekkee ne ne kële su ko waxee ne nañ ko rey ñu jàpp ko kële su waxee nañ ko rey duñ ko jàpp loolu normalul nguur gu mu ti doon loolu normalul loolu moom <laughs> Abdou Khadre jarul sax ñu ñuy discuter loolu normalul mais rek la ma dàq mais rek Mbacke démb sa bis la boo xam ne metti woon na xam nga Mbacke dañ fiy dellu si ma ne la man li xew Mbacke li ma ci gën a naqari waxuma ne bërëb ba jege rek ñu indi fa bruit ba musul am mais li ma si gën a naqadi mooy ñi ñu toj seeni koom-koom li ñu toj seen i alal ñu nar a am jafe-jafe ay weeri weer pour ñu reconstruire ko mooy sama problème problème bi du ñu manifester ñu manifester wul ak yooyu non non non non parce que genn wàll gi yëpp xamuñu sax li tax ñu dem taxaw foofu loolu gëm naa ko loolu moom gëm naa ko mais li ma gën a naqadi mooy ñooñu ñu toj seen kii parce que nee naa du français yi ñooñu alalu sénégalais yi la français yi amuñu fii daara loo xam ne ne ne dañ ci bind lu dul seen tur lañ ciy bind. d'accord dañ seen tur lañ ci bind mais ñi nekk foofu di liggéey suba ak ngoon gannaaw leen xaj ay at ay at yi at ay weeri weeri weeri weeri weeri li ñuy dundal seen njaboot. mais loolu soxor mënul ëpp loolu. d'accord mais mais tension politique bi euh, tension politique bi ndax yow nemmeeku nga ne tension politique am na ci Sénégal instant bi waaw mais parce que xam nga euh, yow Abdou Khadre soo demee ah sama dollar ñu ne la fii dafa am or. nga gas am or nga gasaat am or nga gasaat am or doo bàyyi. lu tax ngay bàyyi mais loolu la rek opposition radicale bi gis nañ ni am nañu or tant que ñu ngi wax Macky Sall dëkk bi day dañ leen di gën a yë yëkkati ñuy gën di euh, euh, yokk di gën a am kii mais fa la ñuy jàpp rek fa la ñuy jàpp du leneen alors que muy ñoom muy nguur gi kenn waxul. Sénégalais yi lan la ñu war a def pour ñu génn si seen ndóol gi ñu ndóol waxuñu dara loo xam ne ne war nañ ko mun a def pour que suba entreprise sénégalaise yi am ay marché pour ñu mun a fay création de richesse jigéen ñi nekk ci faro yi yi nekk ci àll bi di liggéey di béy. loolu responsable nguur mais moom laa lay expliquer mais ñi leen bëgg a ñi leen bëgg a wuutu tamit defuñu defuñu fi proposition. kenn defu fi proposition ñun de. bi ñuy def ñoom ñoo ngi i fi Macky Sall jógee na loolu rek lañ fi nekkee ak dañ ñuy tere mais ñun ñu ngi def proposition. coalition juste ñun ñu ngi def proposition ñu ngi demander secteur privé national ñu jox les assises du secteur privé national ñu woo les acteurs du secteur privé ñu ngi demander contenu local bi ñu jël lu bëri bëri jox leen ko. ñu ngi demander jox li commande bi jox. d'accord léegi euh, Amadou ngeen ci wax mois d' mille vingt deux ministre de l' intérieur dina bind. arrêté deux mille vingt trois non euh, deux bind arrêté ne caution bi lii la ku bëgg a nekk candidat il faut nga def parrainage bulletin yi lii la su boobaa ku war a nekk candidat dina nekk candidat ku warul nekk candidat su nekkee candidat sénégalais yaa ngi fi ñu ngi seen bulletin de vote. c' est aussi simple que ça. duñ ci wax. yow yow troisième candidature Macky Sall. xam na yoon nekku ci du nga ci wax. troisième candidat Macky Sall Sweet Beauté du ma ci wax c'est pas mon problème c'est des problèmes individuels man sama problème la fi mu nekk li man ñor mooy xale yi sonn. non non non Sweet Beauté mooy lu individuel mais euh, troisième mandat xam nga tax nekkul lu individuel troisième mandat Sénégal la te nañu gis réew yu baree bari li ko taal mooy mbirum ñetteelu. candidature ak saax-saaxee constitution yow de Amadou euh, Bachir Ndiaye. su ma dugg jotee. léegi non non il faut que yéen ngeen wax lu leer. Abdoul Khadre waaw su ma dugg jotee. yow ànd nga ci wala àndoo ci. ma ne Abdoul Khadre su ma dugg jotee dama lay expliquer man ay texte laa lay wax. waaw su ma dugg jotee. ñi war a nekk candidat yi dinañ wax. d'accord ñi ñu ànd ñun. dinañ ci wax ñi ñu àndul ñun dinañ ci wax. mais yéen deux mille deux mille douze. deux mille onze deux mille douze bokkoon nga si ñi doon xeex troisième candidat bi Abdoulaye Wade. ñu ngi woon euh, buntu assemblée nationale. sa rond point ba. di xeex troisième candidat Ablaye Wade. di xeex projet de loi bi ñu bëggoon euh, dugal euh, assemblée. troisième candidature bi nag waaw bi ñu ko décidé ne dañ fay am ñu continuer di xeex. troisième candidature bi. waaw ne warul am def tout pour que ñu bañ a fal Ablaye Wade. ok ne nee nga 2011 2012 ne nga troisième candidature warul am ci Ablaye Wade ñoo ngi 2023 est ce que war naa am ci Macky Sall. mois d' août jotee Abdoul Khadre. dinaa la ci wax. pourquoi mois d'août parce que mois d'août texte yi. ñun dañu jéem war a jàng xar xar xam nga xaaru leen woon texte non non non non en 2011 xaaru leen woon ay texte xaaru leen woon conseil constitutionnel yéen a woon ci mbedd mi naan Ablaye Wade dafay def ak troisième candidature. waaw xaaru leen woon benn texte nag Amadou Bassirou Ndiaye. dañ doon xeex pour ñu bañ a voté bi mais bi ñu voté texte bi lan lan la nit ñi def. dañoo continuer di xeex troisième candidature bi. ñi doon xeex ñooy ñaan. mooy askan bi ñenn ci askan bi. ñenn ci askan bi. waaw ki ki ki xeexul dem ba gagné mu nan la def dafa bàyyi affaire bi yëpp dem dem dem dem defi campagne électorale c'est-à-dire li ma bëgg wax mooy fi nekk nii moom ak opposition radicale bi ñun ñuy divertir xam nga ñun ñuy divertir mooy lan. troisième candidature du programme politique. lu tax xam nga lu tax programme wax la ñi ko defoon programme yëpp. daf ne moo tax ñu gagné gagné xam nga ñun xam nañ bokkoon. waaw. alliance démocratique penco. waaw xam nga lan lañ def ñun soutenir ñu kenn 2012 kenn lañ soutenir parce que ñu ngi nekkoon di xeex loolu. waaw doon euh, une erreur. erreur bi mooy li conseil constitutionnel euh, décidé ñun dañu continuer di xeex di wax. ok Macky Sall dem. dé dama lay expliquer rek ñu ànd ñu woon ak Macky Sall soutenir ñu ko sax premier tour de de de. de léegi léegi foo foo tegoon ngeen ko doon xeex foo ko tegoon fu ngeen tegoon 2012 di xeex troisième candidat Ablaye Wade. parce que dañ ne woon amul droit bi parce que constitution bi mayu ko ko. léegi léegi bii nag. bii léegi dañuy xool ñu xaar deux euh, mois d' août. léegi bu la passé la moo tax xaaru woon. waaw parce que erreur la woon. ok d' accord. waaw ah, kooku erreur la woon. d' accord on attendre ba mu conseil constitutionnel wax parce que xam nga ni ñuy def mooy mënuñu dëkk si réew moo xam ne saa yu ñu construire rek ñu déconstruire ñu toj ñu yàq. c'est-à-dire il une fois pour toutes ñu d'accord nañ ne am na ay textes yu fi nekk ñu suivre textes yi su textes yi suñu waxee Sénégalais yaa ngi fekk seen seen seen carte de. d'accord Sénégalais yaa ngi seen carte de ku nax sa bopp foog na ne ay nit mbooloo mun na bëri wala am nga pouvoir am nga xaalis am nga mun nga jël Sénégalais nax nga sax Sénégalais dépassé nañ état boobu. d'accord léegi yéen coalition juste. 2024 incha allah. da ngeen am candidat. ñu ngi liggéey sur ça ñu ngi liggéey ci pour 2024. nan la ñuy def ndax du ñuy am candidat wala du ñu am candidat mais problème mu candidature soxalu ñu fi mu nekk nii li ñu soxal mooy fii ak mois d'août ñu créer construire suñu programme suñu projet de societé war na Sénégalais lii lañ bëgg lii lañ bëgg ñu jàppale secteur privé national ñu bëgg ñu dañ bëgg koom-koom bi dellu si suñu sénégal yi dañ bëgg Sénégal ñi nga xam ne xarañ nañ ci loolu ñu jox leen koom-koom bi ñu liggéey ko sénégal yi jariñu ci loolu lañ bëgg ñun jërëjëf euh, Amadou Bachir Ndiaye waxtu yu jeex ñu lay sant la gërëm jërëjëf Abdou Khadre maa ngi gërëm waa réew euh, di ñaan yàlla yokkute am fi am fi yëpp di jaay Seydina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam euh, Amadou Bachir Ndiaye moom la ñu invité woon tey seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë jëf euh, jàmm jàmm jërë jëf euh, jàmm jàmm jërë jëf euh, jàmm jàmm jërë jëf